saddi lisaani nawir janaani safi amaani wasil baraay barkeb seexul xaddim mbokki lu xew TV seen waxtaanu juróomi minute bëccëg gu jot ci weeru safar ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibi Abdou Lahad Aw waxtaankatu seexul xaddim ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax di leen xamal ni démb ña nga tolloon ca Mbàkke Kajoor bi Cheikh Rahma Fall joxe boppam sëñ Touba nekk ki nga xam ne moo war a wane naka la ñu àndeek Serigne Touba boobee Seexul Xadim nga xam ni daara ji ñu waroon a toll ci jàngam alxuraan nekk ci njàngu alxuraan ba ñi war a toll ci liggéey nekk ci liggéey ba ndax kenn ku ne xam na ni mag dana toll foo xam ni alxuraan karim dana wees ci moom sëñ bi xamal ko la muy xam ni mënut a ñàkk ci diineem muy xam ay farataam ak sunnaam ne ci tool yi di ñaqal borom bi subhanahu wa ci noonee nga xamante ni ci la sëñ Tuubaa Kajoor nekk fa di fa jaamu suñu borom di fa jaamu yàlla ba sunu borom wan ko pàkk bi nga xam ne ci la njëkk am ci àddina sëñ Tuubaa kër gi mu njëkk am ci àddina mooy pàkkub Daaru Salaam pàkkub Daaru Salaam googu nga xam ni ba nga xamante ni Serigne Fall am na bis muy dem ca àll ba ngir booba wut ay say matt yoo xam ne danañ ko mën di booyalee ngir waajalee ko kafe yeeg yu demee noonu suufu si Salaam waxtaan ak Cheikh Ibrahima xamal ko ni ko sa sang bu tedd boobu day ginnaaw yàlla dafa dogal lu dikk jamono du toog bi su sàccee dëkk bi lu mu jur dana toog nga xamante ni Cheikh bi mu ko xamalee Seexul Xadim Seexul Xadim ñëw ci dëkk bi xamal ni ko Cheikh Ibrahima Cheikh fii la muy pàkku Daaru Salaam nga xam ne ni pàkk boobu moom la Sëñ Tuubaa njëkk am ci àddina mu tombeeg foofu nga xam ne foofu lañ denc Cheikh Anta foofu barabu maam Cheikh Anta bi nekk foofu moo nekkoon kër Seexul Xaddiim nga xam ne foofu la Serigne Touba njëkk am kër gi moom boppam boppam di fa jaamu yàlla di fa liggéeyal Seydina Muhammad saa salaam ci ay way ak yi tagg nga xam ne foofu la sëñ Modou Sa Mbàkke ganee jamono ak Cheikh Mamadal Fadal Mbàkke nga xam ne ni noonu la nekkee ci dëkk boobu di fa yàlla ba bis suñu borom won ko pàkkam bu bu sell boobu di pàkkub Touba nga xam ni Serigne Bassirou Mbàkke ni mu ko nettalee ci meneen baax Xaddiim nga xam ne lu mat fukki nit ak juróom ñoo jóge Daaru Salaam yor ay jaasi ak xeet yu demee noonu ndax booba kenn ku ne xam ne àll boobu gayndeek bukkeek xeet yu demee noonu ne ma nga foofu ca Touba. waaye ba nga xamante ni mag ñi dem nan di wër Serigne Touba di ko wër di ko wër ba fekk ko ci suuf garabu bépp nga xam ne ni moo yem ak tey jii ca kër Serigne Saliou Mbacke ga fa lañ ko fekk mu toog di taalif xasida ak Matlabul Fawzayni nga xam ni fa mu toog di taalif xasida ga foofu lañ joxe ndigal ñu sampal ko fa mbaar mu ni pàkk bi nga xam ni moom laa doon laaj suñu borom subhanahu wa taala yàlla xamal ne man fii mooy pàkk bi di pàkku Tuubaa bin xasi dëgg nga xam ni wa maskani ijaal maskanan mubaarakan wa sayyarani saalika wa naasika ñaant dëkk boobu di dëkk Tuubaa naan ko yàlla maa ngi lay ñaan na nekk dëkk bu tedd nekk dëkk bu barkeel nekk dëkk boo xamante ni da nekk dëkku xam-xam nekk dëkkub ragal yàlla adonka an tajalu daara tuqaa wala ilmi wa daara irtiqaa waaye yàlla maa ngi lay ñaan nga def Touba mu nekk dëkk boo xam ni dëkk xam-xam lay doon ak dëkk ragal yàlla waaye Touba nekk dëkk boo xam ni fu nit di sàkkoo yiw bu ñëwee Touba na ko am waaye nit lépp lu mu ragal bu ñëwee Touba na ko ko dàqal wa maskanan li jal bi kulli xayri waaye wa maskanan li dafi kulli dayri nga xam ne Touba googu sëñ Touba ñaan na ne wa jal ilaahi maskani Touba awat misla ismiha bi jaay xayri man xabat yàlla defal sama dëkk bi di tuubaa nga xam ne na mel ni turandoo ba nga xam ne ma nga àjjana nga xamante ni bi mu jógee Daaru Salaam daa jël juróom-ñeent fukki taalibi ak juróom-ñeent boole kook Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak dëkk ba nga xamante ni armeer yooyu Sëñ Tuubaa ko dël boppam ba noppi garanti ni képp ku fa denc sa yàpp yaram aram na sawara di pàkkub Daaru Salaam nga xam ne Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ca la nekkee foofee ca Touba nekk fa di jaamu yàlla di wéetal suñu borom subhaanahu wa taala ndax moom Sëñ Tuubaa musta bëgg di jaxasoog nit ñi moom lim leen rek la amul itte mooy wéet di jaamu borom bi subhaanahu wa taala ak di tagg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la jeexal ci dundam yëpp moom Serigne Touba kon noonu nga xamante ni jóge na Daaru Salaam bàyyi dëkk ba Cheikh Anta ak juróom-ñeent fukki ak juróom ak pàkk bu tedd boobu dikk Touba fare fa nekk fa ak Serigne Mbacke Bousso ak lenn ci mag ñi nga xam ni fa la Serigne Baara borom rek day moom Cheikhul Khadim gane jamono. nga xamante ni foofee la nekk rek di jaamu yàlla di liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon foofu la ñuy yemandi ci nekk Touba ak sancam nga ci waxtaan wi nga xam ne moom la leen indiloon ci juróomi fan ci juróomi minute weeru safar gi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.